ayca jaajëf comme ni ngeen ko gisee rek match artistes yi euh, Dakar Thiès tey ñoom ñoo woote artistes yi bàyyeekoo fu nekk ñëw ñu jàkkaarloog ndaanaan ba nga xam ne kenn dootu ko présenté muy soxna Batoor mi nga xam ni moo lëmbe kër yi jamono yi bari na ay soxna Batoor nag ndax benn ngi nii taxaw nuyu naa la. fay naa la fay naa la bu baax a baax di nuyu ñuy seetaan di leen jaajëfal bu baax a baax a baax. fay naa euh, match artistes yi euh, tey artistes yi jugee ko fu nekk ngeen ñëw retrouvaille bi soxna Batoor lan la yëg en tant qu'artiste. waaw kontaan bekk parce que retrouvaille bu neex la ku nekk danga bàyyi sa yitte bàyyi sa lépp ñëw pour ñu retrouver wu que ñun euh, comme lu mënti xew ñu ñëpp benn la defoon nañ ko aller defaat ko retour ñëw fi nga xam ne nii moom mooy kees kontaan ci bu baax a baax rek mu mel ni artistes yi dañuy weccoo ku fekki sa morom dafa mel ni dañuy combine bàyyi sa morom dóor ko wala demeewul noonu mais man gëmuma noonu la demee ah match bi moo demee noonu mais match bi jeexagul premier mi-temps lañ nekk dañ bàyyi ba deuxième mi-temps ñu xool <laughs> mais mais première mi-temps yéen waa Dakar yéen a gañeegul yéen a dugalagul deux waaw Dakar moo amagul deux mais yàlla baax na dañ bàyyi ba fin bi daal ñu joxe joxe verdict bi mais gis nañ sa jëkkër nekk di football actuellement muy Marlo ci série bu mag boobulee nga xamante ne kenn dootu ko présenté kenn ci réew mi famille sénégalaise da nga ñëw pour supporter si maar wala waa Dakar nga faral. waaw mais man su ma ñëwul pour supporter maar kan laay supporter nañu waxante dëgg ah. man su ma ñëw bien vrai que Dakar laa dëkk aw ma ñu dul ñoom aw ma ñeent ñu dul sama équipe bi waaye tamit nag nañ ma bàyyi ma supporté man rek <laughs> mooy loolu. mais Soxna Bator ñu gis ko euh, ci première saison poli euh, première saison famille sénégalaise mu def lu doy ñu bëri di ko ci ŋàññ parce que sénégalais yi dem nañ ba xàmmeetuñu lu nit ki sol di ko def ak euh, loo xamante ni moom lay dund de vrai tey boo gisee nit ñi dajeeg yow peut-être xool la benn bët boo xam ni kooku du Soxna Bator lan nga yëg. comme ni ma koy waxee d'habitude ni ma koy waxee fépp man comédienne la mooy sama métier mooy sama lépp li may def dama koo gëm bëgg ko di ko def kon suñ ma waxee leneen ci mbedd bi su ma fekkente ne daf may metti kon nekkatuma li ma doon loolu mooy wax bi. d'accord mais deuxième saison bi tamit gis nañ nga indi lu gën a pire li nga indi woon soxna lan la en fait lan la. dama leen di wax rek ñu xaar ko di ko seetaan da mu ngi daw gis nañ ah, sénégalais yi ni ñu ko bëggee di leen ci loolu bu baax gis nañ bu baax ni ñu ko bëggee ñu ngi koy laay bu baax a baax a baax da gis famille sénégalais su duggee balaa muy am 24 heures nga gis vue dafay romb li nga xam ne nii moom mooy ay 1 million de vues kon sénégalais yi bëgg nañ ko di leen ci jaajëfal bu baax a baax di leen wax ni nag li ngeen seetaanagul lu ndaw la di di ñëw moo gën a pire. ay soxna yu gën a pire. ay soxna yu gën a pire. yu gën a moche. xam nga damaa génn ci ñaareel dem ci ñeenteel. il faut que ma wane jikkooy ñeenteel yi tamit. <laughs> mais soxna est-ce que du dangaa bëgg a delluwaat nekk ñaareel. mais loolu yëpp mën na ci nekk de parce man chaque jour su ma xëyee lu bees loo xam dinaa ko def. la nit ñi ñu naan changé naa wala changé wu ma dama leen di bàyyi ñu seetaan ko. mais temps yi dafa mel ni buzzu buzzu théâtre rappeurs yi dañ ko yóbbu bës bi rappeurs yi bësu théâtre rappeurs yi dañ ko yóbbu gem bi dafa yëngatu temps yi waaw mais bësu théâtre rappeurs yi mënuñu ko yóbbu ñun tamit mënuñu yóbbu seen bës affaire bi dafa yaatu ku nekk da ngay bay sa rek jaajëfal leen bu baax a baax ñoom tamit jaajëfal ñi nekk ci milieu bi yëpp mais da ngay blende wala da ngay birig man kii laa Marlo